asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baal àq ñëpp di ñaan yàlla diñ defal jàmm fu nu mën a nekk dellu si waat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko di nuyu baay Baye Alla la fii ci Touba Sam di ko ñaanal sunu kàddu fekk ko ci jàmm waaye di fàttali mbokk yi bala noo ñëw ci siisee taxaw seetlu bi di leen fàttali màggal ak sëriñ Abdoulahi Mbàkke ibnu xaadim rasool màggal gi jàpp nañ ko le 6 avril la war a doon muy ame fii ci Touba eh, Daaru Rahman ci ndigalul seex Muhammadul Muntaxa Mbàkke waaye ci kilifteefu sëriñ Muhammadul Habib nga xam ne mooy xalifab sëriñ Abdoulahi Mbàkke mbokk yi kon tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci ki ñuy wax Mora moor gen yaakaar naa noonu la tudd de li tax nag euh, ñetti point laa bëgg a waxtaane wala lu ko xaw jege mooy euh, ñu mel nii wax de yàlla mësuma def benn vidéo ngir di démentir wala di saxal wala di weddi bi ma xoolee rek ak ñu mel ni moom ma xam ne bokk xalaat ci laa daal di fas yéene dëgëral man li may wax waaye jéemu jéemumaa weddi tamit ñoom li muy wax ndax euh, comme ku nekk da nga am wax dëgg yàlla àqi wax àq yi dëgëral waaye amoo sañ-sañ am nga àq li nga gëm nga wax waaye àq nit ne li mu gëm wala li muy wax nga ne ko doo ko fi wax wala nga weddi ko loolu moom du du maandute moo taxoon ma fas yéene bàyyi leen li nii kii waaye li ma gëm it ma jëm koo dëggal rek euh, boo xoolee lu mel ni activiste yi xanaa activiste la ñuy wax man wax dëgg yàlla taxul ma bàyyi leen xel baax ñi ma ci bàyyi xel lu ñu néew la dinaa ko wax fii seen xeex ñi ma ci jëloon seen xeex porté ko ak gëm ko euh, lëkkale ko ak sama bos wala boog ñoom seen bos sax gën a dëgër sama bos euh, ñett laa ci gisoon muy ko ci mel ni ki ñuy wax giri mari Sagna ki ci toppaat mooy ki ñuy wax euh, Abdou Karim xurum xaax yaakaar naa noonu la de ak ka ca toppaat mooy ki ñuy wax Dame Mbodj ñooñu laa gëm seen xeex ne ay activistes yu ma gëm dëgg dëgg dëgg ne seen réew ak seen askanu seen ñoñu réew ak seen askanu réew ñoo leen itteel ngir nu nu mën a amee jàmm ak nu nu mën a amee dund gu yéwén loolu ci leen seen combat nekk guddi ak bëccëg ñooñu moom nangul naa leen ko sant pour cent ñi ci des tamit weddiwu leen waaye taxul ma saxal nag seen mbir moom wax dëgg yàlla dama ci tey nag dafa am benn occasion bu tax rek ñuy wax ci Mollah Morgun mi moom ñaar laa ciy waxal nga xam ne dañoo gëmoon ay waxam di ko porter jëloon ko mu doon seen xeex lu mu mas a wax ak wax ji nu mu mën a mel rek fu mu mën a jëm wax ja nu mu fa mën a jëmee nu mu fa mën a àggee rek ñoom neex na leen ginnaaw ñoom laalut eh, xaw ma lool di wax eh, fi gars yi di wax noo ko sama xaw ma noo ko sama comme laalut seen concession rek laalut ci loolu rek amalu leen problème ci leen gëm eh, waaye yaakaar naa ne góor gu nekk nërmeel na la fi amal na la fi guddi wala mu amal la fi yoor yoor wala mu amal la fi bëccëg waaye ànd ak loolu lépp ñi gëmoon xeexam moom mësunoo contre loola ñoom moom loola mësu leen a déranger mësu leen xeex nag dama gis ne ci principe yi ma jàpp ne ci lañ koy teg mooy saa bu ci déggee xaste wala wàññi awra walla euh, wala saaga walla violence xeex boobu man dootuma ko gëmati xeex boobu moom duma ko gëm waaye xeex bu teg ci xam-xam tege ci ay principe kooku dama nit ñi nag dafa am dafa mel ni seen xel yi dañ koo jënd li ñuy wax xel dafa am xel yoo xamante ni am na ñoo xam amatuñu benn kii boo leen déggee ñuy wax dangay xam ne nit a ñuy wax boo leen déggee ñuy jooy sax da ngay xam nit la ñuy jooyal maanaam li doon yëngu ci ñoom dafa mel ni loolu dañ ko perte dañ ko perte bu ko defee ñaar ñi ma jàpp ne mooy ñi mu doon waxal ak ñi nga xam ne tey dafa mel ni ñoom ci seen ginnaaw la tafu ñoom dan daan mer ci wax ji bu jëkk tey jàpp naa ne li mu tàmbali di ko def ñoom ña nga cay bég ñii ñaar nañ kii tamit ñëlay tamit tàmbali di mer ci moom li muy wax te moo ne ñoom la daan bégal tey tey jii ñu xëy mel ni daf leen a bégalatut ñu tàmbali ñoom it wër ko te mel ni nag ñoom man ndox di yàlla jàpp naa ne ñoom it mm, ñoom laay waxal seen xel yi dafa mel ni dañ koy foyee ginnaaw yow mën nga taxaw nit ñu koy waxal loo xam ne yow leer nga ne du dëgg nga influencé ko di ko ci félicité di ko ci ndokkeel tey mu dikk la mu doon wax au contraire di ko waxaat ci keneen nga bëgg a euh, ñaawlu loola ak won ko ne ko du dégg ba mu jaral la mel na moom dong mu génne ay nit yi nit ñu génnaat ci internet bi taxaw jëlaat ko défense mel benn benn personne personne boo xamante ni euh, wax dëgg yàlla doo mën a xool ci moom sax lan ngay mën a kii euh, ndax xeex bi moom ku ko gëmoon rek da ngay xam ne toujours boo déggee Ousmane Sonko mi ciy xeexam dina wax ne bu nuy xeex mbir. Euh, ñenn ñi di ko rafetlu wala ñenn ñi di wax ne xeex ba seen yoon nekku ca xeex boobu bis dana ñëw mbir moomu ñëw ci ñoom euh, ñoom ñu jóg di ko di ko di ko xeex mooy combat bi mooy di mu daan saaga ay nit ñëpp waroon a taxaw ñaaw la ko di xëtt aw awra di fekk ñu baax ñu sell muy gàkkal seen ab der tilimal leen yow nga ne cell tey muy tilimal beneen der nga ne ko déedéet du fi amee te der yëpp di benn ñëpp di ay gor ñëpp di liggéey kër Sénégal kon wax da yàlla yéen ñaar ñii ci wàññeekuwaat bégaat ci tamit ñoom it xaw ma ñoom la ñoom démb ñoo doon mer di wax kii du nitu dara amul maana di ko kii tey ñoom ñoom lay àndal ñoom di leen defal cagri ñuy xëy di naan ah nit ñi nag wax da yàlla ñoom ñooy ñoo war a seet seen bopp bu buñ seet kii de man di seetuma kii ci moom dara li mu wax moom na ma ko considéré rek laa considéré woon benn <laughs> nit la woon boo xamante ni yàlla mayoon na ko tuuti as jot yàlla defaloon na ko tamit tuuti eh, nu mu tuddati mayeloon na ko jot yàlla mayoon na ko kàttan <laughs> yooyu nag yàlla dalay laaj ëllëg ci lan nga ko jeexal sa wërsëg bi loo ko jeexal sa jot gi loo ko jeexal sa kàddu yi nga doon wax benn kàddu boo wax rek ëllëg suñu borom dana la laaj kàddu googu nga wax te nee na nit dina wax benn baat ngir jublu ci reetaan loo nit rek dana xën sawara juróom-ñaar fukki nawet dana ko xalangu soog a àgg ci xóot-xóot ba yonent bi sallallahu alayhi ni téel leen ma li nekk ci seen ñaari ŋaam ak li nekk ci seen ñaari pooj ma warlu leen àjjana am na ku ko waxaat tamit daal di yonent bi waxoon na mu aas ne ko xanaa xamoo ne nit ñi li ñuy wax ci seen làmmañ yi seen ngóobiiti làmmañ moo leen di tàbbal ci xóot-xóoti sawar kon loolu loo ciy génne war nga ko rafetal war nga koo teg ci kii waxoon naa ko dama waaw yaakaar naa wax naa ko ci biir de dama ne woon yii su ma gisee nit di ko xeexe muy xaste saaga yàq der euh, violence ak yooyu damay wax ne man ànduma ci yooyu yooyu ku may gis nga koy xeex damay xeexoo xeexoo dëgg yaakaar naa ne ku mel ni Guy Marius Sagna ñaata yoon la dem kaso ngir askan wi amul benn yoon boo xam ne dañ ne Guy Marius dañ ko yóbbu ngir dafa tooñ nit dafa saaga nit dafa violence dafa def dara toujours mbirum askan wi moo ko dugal kaso ñaata yoon la dugg kaso ngir mbirum asan Abdou Karim Xorom Xaax ñaata yoon la dugg kaso ngir ñaari illa di xeexal askan wi waaye di xeexal diine ngóor jigéen bi ñu ko fi xeex moo dem ba ca wetu pale ba mu taal daraapo bi wane ni àndut ci ngóor jigéen kasom bu mujj bi kan ban kan lan moo ko fa dugal imaam bu muy jéem a protesté ak di rang ab deram ak di ko di ko kii ñaata yoon lan fi yokk courant Abdou Karim jóg wala Guy Marius Sagna jóg wala pétrole waaye sëñ bi booy xeex xeex yi mooy mooy xeex bu bu boo xamante ni dañu ñëpp dañuy xam ne ki ngay xeex xeex bi dëgg la euh, beneen bi ci desaat mooy euh, gis nga. Euh, as gor nga xëy di ko jéem a yàq daana ko yàq ko sa bopp nit ki dafa mel ni daanaka suñu borom day wax ne li nekk ci nit ki lool lay génne li ci nekk li ci nekk nag mooy xool ban tame la koy segge ban tame lay segge li mu doon mooy yenn saay am na tame yoo xamante ni doo ci mën a segg li ngay wax ndax li tan mooy dangaa amut sunguf su rafet wala dangaa amut meew moo ci mën a xelli li nga mën a xelli rek mooy lu mel ni dama koy wax ne par exemple toujours nit ñi dafa am ñoo xamante ni toujours bu njëkk liñ leen doon tagge ci njàmbaar ci góorgóorlu dañ leen di wax ne yéen da ngeen a am jom loolu dañ ko daan wax nit dañ ko daan wax ne ko yow da ngaa am ngor dañ ko daan wax da am fulla mais léegi daa ni lépp sens contraire bi ni ma ko daan waxee da ngaa ñàkk jom léegi ci leen nit di tedde da ñàkk fulla léegi ci leen nit di tedde da ñàkk ngor léegi ci leen nit di tedde nga jooju nag jërut yéem dara jërut yéem kenn ndax mbir la moo xamante ni ñi sell te nu sellal leen daa mel ni bëggunu loolu loolu dafa am nit ñu sell ñoo xamante ni tey bu nu lekkoon benn gerte boo xamante ni gerte bu lewut la danañ xëy di ko wàcc ba jant so Seydina Abubakar amoon na jaam boo xamante ni ci këram da daan def waxtu wu nekk wala bon waxtu wu nekk bu ngoonee mu indil ko meew wala soow mu koy doge ba benn bis mu indil ko ko Seydina Abubakar naan ko te fekk na lu ko mës a jiitu saa bu ko indi da koy wax foo ko jëlee mu ne ko maa ngi ko jëlee fii maa ngi ko jëlee fii mu nangam Seydina Aboubacar soo ko naan keroog koor ga dafa tàng mbóoyal lool Seydina Aboubacar naan ko bi mu ko naanee waa ji ne ko lu tax yow tey laajoo ma fu ma jëlee kii bi te ma la masaana wax da mi foo ko jëlee mu ne ko waaw tey de coono koor gi la ak kii bi moo ma jàpp mu ne ko foo jëlee lii mu ne ko fi ma ko jëlee mooy dama daan def bi ma nekkee ci yahud yi bi ma nekkee ci li nga xam ne mooy jaahile dama daan seet di gisaane man sax mënu moon a gisaane waaye dan ma cee yoroloon bor ñooña laa taseel ñu fay ma ko ma indil la ko nii ma indi ko nee bi ma ko indee na loola ci la Seydina Abubakar dafa jël baaraamam dugal ko di luucu di luucu ba soow mi jeex fii am na fu ku baax ku fi nekkoon ko ni wax suñ as sa Jaxate xam ne moom lim daan lekk mooy lu mu bay mas naa dem ci ab dëkk yóbbaale sangalam comme sangal si soxna Ndey Mbàkke di jaay nekk fii mu soxna Ndey Mbàkke mu sëñ Abdou Fatah nee na bi mu demee nee na yàlla dogal mu dem ba waxtu añ jot mu jox diw ne ko toggal ma fii ab laax bu woyof mu dem di ko toggaloo mu ko ñuligee ñulig bu ëpp mu jëlaat seneen sangal dolli ko ca bi mu ko lekkee rek tàmbali di woccu mu woo ki ko doon togg ne ko waaw yow sangal sii sama lekk gi xanaa daa am loo ci def mu ne ko waa li ma ci def mooy ñulig bi dafa xaw a rëy ma dolliwaat ci seneen sangam moo ma dolli ko ca moom laa la laaxale mu ne ko waaw kay xamoon naa ne man duma lekk lu dul lu ma lu ma liggéeyal lu ma ñaq nit ñi nag dafa mel ni léegi li ñu ñaqut loolu lañ gën a mën a lekk te mbokk daal lii benn message la rek xam naa wax de yàlla ñuy wax ci ñoom sax du jot du fulla du diiñ waaye nag xañ na comme lu lu tàbbi la nii ñi ci nekkoon rek laay ci tiireloo attention nit ñi daal doo xam danoo weex wala danoo ñuul nit ñi doo xam danoo weex wala danoo ñuul ñi la daan tagg tey ñoo lay xas ñi la daan xas tey ñoo lay tagg waaye nag Cheikh Ahmad Tidiane dafa wax ne du ma ci wax dara ñoom ñi koy def ñooñu la ñuy laaj lan mooy dëgg mbokk yi lan mooy dëgg <laughs> yéen ñi daan tagg Mora Mora gën tey yéen a koy xas lan moo ciy dëgg rek loolu laay laaj ci ñaari kaay yépp nag laa laaj kaay bii da ko daan xas